waxi sëriñ bi ci xasaa'id yi doona makaatibil ibadatu ma taxarrubi kullal masaaya jamaa sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu mas soxna hawa u busa ndax man nga jang mu ko taxul ma mel ca noona sëriñ bi ni ko lootalee jàng na nga mokal xasid ak bismillahi ik fi nii xanaa ni ku ko mokkal ci jibay yonante bi ngay dekkee sallallahu taala alay بآله وصحبه وسلم